dañ ko bëgg a mettre en mal avec la population brouillé nañ seen bopp yi fi mu ne mettre ko en mal ak kilifa diine yi maanaam jaxase ko ak kilifa diine yi jaxase ko ak population Sénégal bi mais pour la ku la ne sangul sa taar la bëgg ñun ñëpp a war a sangu ndax ñu taaru kenn ku ne bëgg nga dund comme yëf yi épargne wul kenn da doon def li njiit war a def li njiit war a taxawee mu di ko def ñu ne ko bugguñu loolu lii lañ fii la ñuy jaar lu muy wax na kenn ku ne nag jël sa responsabilité bopp ba ëllëg lu ñu gis lu ñu gis ñu assumer ko xam ne moom la mu waroon a def def na ko moo ki ñooñam moo son gouvernement échec la échec bu métti la ndax li tax mooy tey ñi nga xamante noonu lañ ko foogee woon demul noonu ndax feebar peut-être moom gis nga loi habilitation bi nga def trois

kon population bi président de la République mi nga xam ne moom moom nga ñu woon fal ko tey bàyyi na leen ak seen bopp nit nag bu la bàyyi sa bopp da ngay xam yow yaay kan mooy fexe nag yow aar sa bopp sinon boo feebaree dangay ngay dee ndax li la war a faj amu fi. loolu loo xam ne ne dans pour une semaine ou deux semaines ou un mois day disparaître donc bu ñu defee projet ñu ne d'ici euh, mois d'août septembre xam nga il faut apprendre à vivre avec mais di août septembre xanaa dañuy il faut ñu lekk il faut ñu liggéey il faut ñu def seen soxla donc. bu hôpitaux yi bu feesee loolu loolu xam naa jël nañ ay matukaay yoo xam ne ne xam nga xam nga bu njëkk bi boo xooloon bu njëkk bi sibir bu ñëwoon ci kër day walla kii walla kii walla kii ku nekk dina ko doon am donc virus bi virus bi maladie bu grave la mais dañu war a dañu war a continuer di liggéey continuer di di di di di di liggéey pour mën a pour mën a bañ a suñ kon pour éviter que suñu sonk kon mën a suux parce que waaye relève économie économique. parce que euh, même les pays développés am nañu ay des problèmes mënuñu jël fay penchage au Sénégal ici le secteur informel c'est le secteur le plus important donc bu ñu nee dañuy tëj marché tous les jours ñaari fan la ñuy ubbeeku xam nga loolu problème la bu ñu xoolee transporteurs yi problème là. bu ñu les autres secteurs informels problème là. kon donc dañu war continuer ku nekk di sol masque respecter distanciation mën dem ku bëgg a julli ni dem julli ci jàkka dem julli ci jaka ku bëgg a dem liggéey mën dem léegi liggéey comme ça ensemble ñu mën a vraiment aar population bi pour mën a continuer di contrôler faire bu pic bi bu jàllee vraiment d'ici euh, d'ici ni ñu ko wax d'ici euh, fin fin mai depuis juin depuis ju depuis juin vraiment pour yàlla yàlla moo mën a sori yàlla euh, continuer di di ñu aar di di di jàppale Sénégal surtout. jàkka yi ubbi nañ ko jàkka yi c'est bien beau ñun ay jullit lañu. kenn mënuñoo booleeg suñu borom tabaraka wa kenn mënuñoo booleeg Muhammad sallallahu alayhi wasalam sallam parce que kenn ku ci ne ci ñun ba mu juddoo dañoo liqaam ci say nopp nodd tudd la rey xarum tudd bon kenn mënuñoo jaxase ak lislaam dëgg la nag suñu àll wa wudde waaye am na lu ñu xam tuuti ci diine am na lu ñu xam tuuti ci diine jàkka yi d'accord mais Sénégal pays laïque la di jullit yaa fi chrétien yaa fi ñëpp lañ boole woon au même pied d'égalité est-ce que ñooñu dégg nga bi état d'urgence bi jógee ak tay sen kàddu jog ci lenn lu ñaaw lo xam li nit mën na koo fàttaliku ci ñom dañu daldi suivre strictement les règles. pression euh, vous savez foi de fort pression qui religieux mais gis nañu religieux yi ni ñu taxawee ni ñu jàppalee président ci xéx corona bi gis nañ que guide religieux yépp que ce soit les chrétiens et les musulmans ñepp taxaw nañ kon bu démé ba ñu ni dafa c'est des pressions mais mais mais de déconfinement bi du du Sénégal kese mais Mali def nañ ko Afrique def nañ ko pays yu bari ñu koy def. du côté catholique xamna né ne loolu am. Benjamin Ndiaye sañul dem di foxatal Macky ndax falu ko fi mu yem lay yem Elimane nag xaw ma seen jëf ak leneen diine jàmbur nag dama ciy mandu waaye xam naa ne côté catholique kenn ci ñoom du foxatal Macky ñooy tax ne warloo ko faxatal ñun ñoo ko fal te bu ko defee nii dafa yaakaar ne loo gën ci réew mi su dee nag am na ay nit moo mool noonu waaye wóor bu jëlee décision dafa yaakaar ne moo gën ci réew mi def na wara def. non du faiblesse état mën naa ne ndax xam nga relisé il faut que waxtaan am ndax kilifa diiné yi aussi tamit dañoo xaw a sonn te dafa yàgg xam nga nit ki boo ko ba may ko leen li day am loo xamante ne moma moom sa bopp tey tamit kilifa diiné njabar gu la ñu am ndax xam nga li xew lew na ñeseen ñu ñëpp ñoo ko ñaawlu tey tamit li xew lew na ñeseen tey mënon man mën naa xew Touba ndax ñi wuñu ko

suñu bopp nag dañu ko jël sexe ko sàmm aar li nga xamante ne mooy suñu bopp ñag suñu bopp ndax képp koo xamante ne feebar bi ñëw na si yow yaakaar naa ni comme amul garab gu koy mën a faj te boo demee maanaam lu mu lu euh, mu garaaw garaaw ci faatu ngay mujj kon yaakaar naa ni ku nekk nag ragal nga dee kon feebar baa ngi noonu président mi ngi noonu askan waa ngi noonu kenn ku nekk na xool ñe dañ li nga xam moo sax mbirum dund bi ku ne xam ne nii fi mu toll ni situation bi ñu ngi yóbbu dund gi nawet baa bëgg ñëw Touba barki dem lu dund gi tàmbalee ñëw amul sax magasin yu ñu ko dugal ñu ko dugal si biir gendarmerie bi tey jii bu xëyoon taw dund gi day yàqu te ceeb moo fi jotugu ñëw leen ñëwagul jàpp naa ne yooyu yëpp il faut ñu organiser waat xoolaat lañ la ñuy def ba nga xamante ni population bi ko méritoo yittewoo ko a gaawee la yoo xamante ne jàngal yoo xam mesures yu am solo yoo xam taal jël na ko pour population bi léegi nag comme population bi ñoo ñoo si des mooy koo xamante ni feebar baa ngi si biir nekk ci biti kon lii war mooy ñoom ñëpp ñu maas di takk ay masque di respecter li nga xamante ne mooy conditions yi nga xam ne moom la santé wax ndax loolu mooy jàpp naa ne mooy li nga xam ne bu ñu ko defee danañ si génn mais bu ñu ko deful feebar bi dafay gën a law ba nga xamante ni danañ dem ba tey liy dee si al ci biir mooy ëpp foofu noonu ñu yore feebar. dafa am lu ñuy xeex nee naa la on en guerre dañoo nekk ci xare mais loolu ñuy xareel nañ ko fexe ba ne ko tiib tëral ko ray ko sànni ko fële buñ ko gisati fenn ah waa màkkatul mukaram laa doon wax ñu tëj ko léegi jumaa yeeg jàkka yi ñu tëj ko église yi ñu tëj ko lu tax jàngoro ji moo tax te jàngoro jooju tax ñu tëj ko ba tey mu ngi fi demut waxuma la dem mais wàññeekuwut sax far dafa gën di yokk ba far jaaxal personnel de santé bi jaaxal képp kuy julli jaaxal képp ku yore bakkan buy dund jaaxal képp kuy jaboot waaw bon bu ñu diisal diine diine suñu borom diisaliku muy suñu borom tabaraka wa taala muhammad sallallahu alayhi wa sallam diine